Euh, MNF Maïmouna Ndour Faye euh, les médias euh, révélé que ne yow yaa nekk la personne bi mu nekkaloon au téléphone euh, wax nga sànq bi ngay soog commencé ah que ne c'est ta c'est votre sœur sa xarit la dëgg la mais nga nekk koo xam ne xëy na yow la mujjee waxal avant yi fi fi di ko arrivé ma bëggoon a xam comme que am ngeen boobu proximité yow ban lecture nga ci am ban gis-gis nga am ci moment affaire bi muy am parce que lu bëree bëri nit ñi nañu wax ne am na ñoo xam ne tàppale deret bi nit euh, lu wax nañ ko ci en fait am na ay nit yu nga xam ne yàlla moo leen bindee noonu te man euh, coxor ak mbon yàlla dafa def euh, nekkul si suma ci ci ci man man ñaanu ma dara nit du ma wax lu ñaaw teg ko ci nit te wóoruma mhm. te relation humaine yàlla moo koy def man Euh, ñëw ki ma présenté euh, ki ma présenté Maimouna lu Faye ñu xamante depuis boobu et nos relations mu euh, nekk des relations continues entretenues par nos par nos familles par nos enfants c'était Aliou le ministre Aliou Sow mm-hmm. boo tey jàppuma ni Aliou Sow moom moo gën a jege ci relation yu waxtaan ci suma liggéey may waxtaan ak moom ci liggéeyam te mu respecté samay position ma respecté ay position ñëpp du ngeen jubóo toujours ah oui ñëpp <laughs> fàttali émission mhm. yu yu gën a métti yow laa gën a nangu émission que que moom parce que mhm. elle a ses principes elle a sa liberté mhm. ñu bëri nag danañ wax lu nekk def lu nekk mais elle reste sur les mêmes principes alors bu ñu defee émission dañuy waxtaan comme ni mu waxtaan ak ñeneen y' a d' autres aussi li di. dégg naa suma suma suma suma xarit Maodo Malick Mbaye ne day analyser ak moom ñeneen mhm. beaucoup de gens parce que c' est comme ça. keroog bi yëf yi doguma la Abdoulaye Diouf Sarr quand ma appelé dana ma neel may mën a Ndour yu amoon ak moom en tant que sœur. boobu laa indi tey pour pour ko. absolument Abdoulaye Diouf Abdoulaye Diouf yàgg toog ak moom. di waxtaan ci leneen noonu la amee woon relation. noonu la amee relation ak ni Diomaye. c' elle bu ci nekk day wax am yow parce que c'est son son rôle de journaliste parce que loolu lañu sénégalais xamul mooy mm-hmm. liberté am sa liberté am sa capacité de conviction et de par man lu mu yekk nguur gi parfois <laughs> mais dañ ma koy dañ ma koy dañ ma koy sëf mm-hmm. mais man dama koy sëfu man ma xarit suma xarit la am na ci biir football sport am na journaliste sportif ñu may dégg dañuy critiquer fédération bi mm-hmm. mais sama relation ak ñoom dama koy wax toujours que j'ai de bonnes loolu c'est la liberté moi je suis un produit de la liberté donc un produit de la liberté ne peut pas s'offusquer de, de certaines positions donc léegi bi amee ñuy commenter à Farba Ngom aussi tout le monde sait nos relations mm-hmm. euh, que ñëpp xam nañu ko ci biir parti bi au delà de ça nos famille dañu Farba def émission ma oo ko bi mu jeexee mu ne ma naa la su ma jógee suma bureau mm-hmm. waaw day gudde rek yéen c'est ce qu'elle a moom day day day gudde quand elle est sortie mm-hmm. ñuy waxtaan bu ñuy waxtaan ñuy waxtaan ma koy ne mais tel tel c'est pas normal et ñuy waxtaan ñu analyser émission bi ci rek rek mu mu mu yuuxu. du ma ñëw nag ci détails yi parce que après. <laughs> dafa caalin mais du ma ci ñëw. alors mu ñu mu yuuxu man ma téye suma téléphone di ko wax moom diw mais elle elle parlait pas mais j'ai gardé le téléphone. Ouais. après j'ai essayé de tous mes amis communs tous nos amis communs ay Abdou Khafor Touré. Mm-hmm. Euh, Abdou Aziz Diop sont des amis. Ouais. qui sont aussi ses amis. Mm-hmm. Euh, ñoom euh, euh, même Tafsir Coy hmm. on n'est pas dans la même conviction politique ouais, mais je connais ces mu nekk xarit ñun ñëpp hmm. euh, ma oo ñëpp mënu ma leen jot ma oo Pape Samba Diop parce que xam moom xam naa ni nitu guddi la hmm. oo ko mu ne ma waaw mu ne a ma la ma expliqué ko ma ne ah, ma jot la ma jot la ma laaj la numéro vigile bi nga jox ma vigile bi ma wax la ni nga ne ma ah bon man te maa ngi jóg ma oo vigile bi bi ma ko may mun a kañ la fi jógee si ko kon soit. loolu ça contredit une version na ñu ne émission bi jeex na avant. non c'est pas vrai et que voilà l'agression est venue <laughs> man maa jot vigile bi mu ngi fii di ma dégg. Mhm. te jomm naa wax loolu. bien sûr ma ma ma ne ko ma ne kañ la fi jógee mu ne ma yaa dix minutes. Mhm. ma ne ko toppal oto bi soit am na accident ou bien agressé nañ ko. Mhm. parce que maa ngi doon wax man mujjantal bi xawul rafet. ci la vigile bi dem. bi mu ñëwee moom bi mu àggee comme que enregistré na sama numéro parce que la première fois. Mhm. mu rappelé ma ne dañ ko agressé koñ bi sax yëpp gën a yëpp a ngi fees deret loolu moo am. Mhm. boobu man maa ngi jóge maa ngi diggante maa ngi jóge Kaffrine maa ngi diggante Kaolack ak Fatick. ah fekk la fi woon donc. non non Kaolack maa ngi jóge Kaffrine Kaffrine lañ laa seetaane émission ba mu jeex tàkk ba ma génn Kaolack ci lañ commencé jot ba Fatick ba dépassé Fatick maa ngi wax ak ñu ngi analyse ci foofu la commencé am boobu laa jot nit ñi man bi ma jógee foofu directement maa ngi dem hôpital mhm. bi ma demee hôpital fekk naa la foofu fekk fa fekk fa député Fatba fekk fa ñeneen euh, ñu nga xam ni yëgoon nañ ko daw ñëw euh, suma suma doom ma jur mhm. moom ci waxam bokk na ci ñi ma oo oh, jël leen pour que ñu dem secourir ko mhm. alors loolu moo am mais man je suis offusqué par certaines critiques par certaines wax parce que wax yu bëri yu ñaaw tegu nañ ko ci daram après Dieu est le meilleur des juges. Mhm. te ku ci nekk danga nga lay wax suñu borom ëllëg. waaw man loolu laa jàpp rek gis nañ ni fii nit ñaa ngi wax làq seen ginnaaw plume di bind lu la neex. Mhm. ëllëg. c'est malheureux yàlla dala dañu atte. Ah, une dernière question et jàpp naa ni. une ni may mun a si elle n'était pas courageuse. Mhm. si elle ne s'est pas battue. parce que maa ngi suivre affaire bi ci téléphone bi maa ngi dëgg ay dóorante ak yëpp maa ngi dégg maa ngi dégg. elle a résisté. si pas résisté aujourd'hui cadavre la ñuy wax. on a eu de la chance avec elle. moo tax man suis battante suis une courageuse en tout cas moi je suis honoré d'être une des amies un des amis de de de Maïmouna. ça fait plaisir mais l'enquête traîne monsieur le ministre. elle a le sens euh, ba benn lu dal xel en fait. non on a on a quand même une gendarmerie professionnelle man mii lendemain bi ma ñëwee foofu di ko seet tey naa ñoom ñu génn foofu donc ñu ngi def seen liggéey. Mhm. faut le temps nag des pas le temps des politiques. waaw ñun moom dañuy soxla ay affaires yu ñu mm-hmm. et tout le monde peut faire confiance à la gendarmerie sénégalaise à la police sénégalaise au service de renseignement du Sénégal et je je maa ngi ñaan yàlla ki nga xam ne moo ko def ak fu mu ta nekk ñu mën koo jël ba Sénégalais xam ni. lii mënut a nekk lu lu mën a wëy nit ki am na conviction am am na respect am liberté am nit xale bu ndaw di xeex di xeex addinam jàmbaar la li ko li ko apporté soutien kenn xamul lu mu toll ba nii nii nit ñaa ngi ñëw ba tey man xam naa fi mu jógee ba àgg ba fii xam naa ko parce que dama ko suivre mhm. euh, te mu jàmbaar am am liberté am am am et ça quel but euh, xëy rek nga ne danga ko que elle a eu une position euh, man mi sama bopp man combien de fois émission ñëw naa fi rentre énervé Abdou Mbow suma xarit. donc vous êtes de ceux xaritam vous êtes de ceux. qui croient que du simple agression. moi je n'exclus rien. Ah ah. parce que du ma du ma du ma du ma. moom moom loolu la jàpp. man tam loolu laa jàpp ak ñeneen ak ñeneen. oui man man je n'exclus rien. Mhm. parce que dama bëgg rek euh, lépp lu may def ma def ko suma akulaay tàlla. Mhm. xaw ma est-ce que agresseur la bu doon dox. xaw ma est-ce que ay nit ñoo ko commandité bëgguma bëgguma tooñ yàlla. Mhm. man dama gëm ni enquêteur nañ def seen liggéey mais li ma gis li ma li ma njortu mooy en tout cas faat bakkanam lañ ci doon. naka la demee nag euh, loolu enquêteurs yi dinañ ko déterminer en tout cas di di di masawu njabootam di masawu famille am masawu yaayam euh, di te masawu papam bi nga xam ne xam naa ko bu baax a baax mhm. euh, gis ko ci guddi yooyu ci période yu jafe-jafe masawu ay doomam am benn doom nga xam ne ngi bitim réew nga dégg sa yaay nga xëy rek su ma déclaré bi nga gis sa yaay ci ay photo yu ñaaw mhm. ay nit di ci commentaire commentaire yu rafetul il faut être grand mais je sais xam naa njabootam xam naa famille am xam naa ne ce sont des gens bien éduqués et qui n'auront qui feront face à n'importe moi un jour un jour ma fille m'a appelé ne ma mais papa lan ñun lan moo war a nekk suñu posture ci li ñuy dégg ak ñi gën a dafa metti ma ne muñ muñ te bàyyi lépp yàlla jërëjëf di la sant bu baax a baax maa lay sant Mamadou Awa kontaan ci invitation bi ma def ñu bëri ne woon nañ ma ma ñëw. xalaat naa ko man man j'avais des craintes ah. gëwutuma woon ne di nga ñëw. man aw ma bi ma déggee ne Macky tas na gouvernement bi ma ne eh l'émission tombe à l'eau. lu ma nëbb aw ma lu ma ragal. vous êtes defal na ma ci àddina lu lu dara jarul ci sama man may may dérobé wu may daw dara. merci beaucoup ak ànd ak ngëm yàlla bu mot sëkk. samay waajur yar ci loolu. di ko sant bu baax a baax comme à chaque fois Abdoulaye Seydou Sow wax maa koy wax dama am chance parce